salaamaaleykum Cheikh Talif ñëwaat ak yéen ci parole de Cheikh Talif euh, tey nag dañu ñëw ci yéen ci wàllum bëggante gis nañ ne réseaux sociaux yi bi mu baree ba léegi xeetu wax yomb bu njëkk da nga daan yor crédit wax farata mu jeex nga noppi mais léegi lignes yi bu la neexee nga fanaan ci whatsapp bi wax bu moo waral nag mbëggeel yu bëri ñu ngi commencé wàññeeku te li ko wàññi mooy nit ki amatul lu mu wax du wax farata. dem ba nekk ci téléphone bi kooku di wax kan la xale bi jooy kan la am sa yaay am sa papa loo añ loo reere foo nekkoon ci ngoon ba léegi naa koy wax noonu dem waxatoo farata léegi bu ko defee bu demee bu ñàkk wax farata boo ñu dëkkee ñetti fan rek dafa boo ci naree def trois cent soo ko takk foo jëm looy waxati kon nani moytu wax lu dul njëriñ day war a dul am njëriñ nani moytu mbëggeel yi te xam ne mbëggeel duy wax mais mbëggeel lu ñuy dund la waaw mbëggeel lu ñuy dund la mais pas lu ñuy wax quoi te amul naxante na lépp di rafet ànd ak sa xel rek bu baax a baax wax dëgg def dëgg am jàmm jaajëf